Michael. mënoo fexe ba xam baatu baatu tàbbate yadda àggale di yow laay waxal tabbat tàbbate yadda abi laxabi ayca tabbat tabbata yadda abi laxabi wata ba maa am loo am loo maa la xoo naaran wa kasaba waaye bu ma yëngal waay tabbat bawal damaa xiif woon mi sax dama xiif de lool sax te man dama cee amul pexe aw ma ci pexe xiif naa trop mun na noonu laa xiif noonu bii maa ngi na xor xor xor demal demal demal jël bool ndax man fi fu ma jaar ndékki demal xool lu jënd ci dëkk bi rek xam naa la. waaw ma takkale ko. waaw takkale ko waaw. lii ndax lii mënta wéy. tabati yadda abi laxabi wataba ma anoo am loo maa lahoo sislaan naaran wa ma kasaba sislaan naaran atabasat isa jaljalti sukuran bisbi fii fi jiini laahi afwaajan fa sabbi masabin kon maa leen ne maa leen ñëwaat waaw gaawal wa sis isa jon nas yàlla de mën na dëpp alxuraan yëpp def ko olof salaamaaleykum. maaleykum salaam. yalwaan. yow kii moom la wala. man la waa. ah waaye gëj naa laa gis di. ma ne nii. ah waaye foo nekkoon da ngaa damaa dama doon jafe-jafelu. ah waaw loo jafe-jafelu tamit. Mm, yow xam miin nañ di la jox. waaw donc nag léegi nag boo fi ñëwulee wax dëgg yàlla dañuy jaaxle sax xawoon naa jaaxle. nag la kay ngaa gis nag la kay. ça va ça va ana sëñ bi nag moom. sëñ bi dee nga fa ci jàmm ba baax. daa bari ay affaire de man gëj naa fa temps yëpp jot laa amoon. Hmm. ndax sama grande sœur bi dafee nekk loolu moo tax. Hmm, waaye namm naa la nag de. te ay sëñ bi daa yokkaat xam-xam. déedéet kay. ba doon ci li mu yoroon waaw daa yokkaat xam-xamam fi mu doon nii xam-xam bu ji ak galaaw léegi. déedéet waaw waaw kon dafa ni dinaa fa ñëwaat. waaw yóbbul lii. Hmm. yóbbul. Hmm, hmm, mais café. café an kay xaaral xaaral sa bopp bi day metti rek. daa yow pot wala. amal na la neexee bu la neexee mën nga dem après ñëwaat. nga indi pot naa ma ni ñàngal dangay di ñaan yow bu yàlla naa di kaf naa di kaf man dama koy bañ a noq mu lay bañ a noq dong fu seqaleem yëpp xam naa ko ah, baax na baax na nga lu bëri boo ah, ah, na yàlla ah baax na kon baax ay yow masa dama koy doog a teggi ci safara si mu da lay be waa baax na ak kay merci di yàlla na yàlla taxaw nee ma sëñ bi ki jaaxal ah tabaarkalla ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin ah yee tax ma bëgg la de xam nga yow danga maa yeb ah yow ku yebaate nga xool li nga def nii pour lan munoo ànd ak sa xel. tey bu baax tey déet xoolal mu def nii xoolal. waaw baax man maa ngi. àggal si biir si di toll. dégg sa coow si biir dinaa ko lijjanteeg yow. bàyyi ko rek. bàyyi bàyyi rek yow rombal rek. demal bawal rombal la wax dama Assane sëñ ay dëkkandoo nga am bàyyil mburu mi bàyyil lii dangaa am ay dëkkandoo ci koñ bi lekk jërul lii damaa xiif ma nekk réeru ma réeroo ndékki woo yàlla defal na ma xéewal goo xam ne mi ngi nii nañ dem nga ah. commandé lu la neex tey dinga añ di nga reer di nga ndéeg te sa matelas bi nga doon wax sax naan dangaa tëdd tëdd ba si yëpp wow dama la koy dama la koy changé xam nga sama xarit nga nañ jëm kii de sama ndëkk li muy metti dina waroon na maa am gone gu mosay te maam nga nangu mu sëyee de. sonn na bawal. Hmm? bawal xiif naa de. xiif. xiif naa trop. Hmm. waaw fi mu nekk nii maa ngi bëgg de yoroo dara dara dara xaalis. Hmm, lekkoo dara it. yoruma dara lekkuma dara. ah ndekam yow mii gone yaa mu a muñ de masamaag ma. jéem loolu. noonu toog xanaa léegi yàlla ñëw. xam àgg ci biir kon. yoroo ñaan di dóor xamoo tos ba pare ñaan ndax léegi mu perte sama yoonu bopp ñu xamoo ko ma làgg ne man hmm, ñaan na kase gi de na Tuuba. lagi nih babal eh. yaa ngi toog maa ngi toog oh nekk nii de babal xiif na eh. te lekkoo dara eh. babal lan la sama biir moom xaw metti rek day met nga àgg ci biir duus ba duus loolu sa réewandi gee tax mënumaa def ak yow du da nga sa jikko moo ñëwati mais dina lu ma sëriñ loolu booy bëgg dee di ma fekk ci biir wax ak man lu leer man naa ngi ci biir. sama ngóor yàlla ba yàqu woon oh kat ngóor yàlla gi dama moo lakk ak pooj la ilaha illallah Tämä potkuutet ja mun jär. Illa, illa, illa. Kaverit ketään kautta tuot. Jakka, jakka, jakka, jakka, jakka, Kim, tabarfakalla masha Allah. Awaay sama jeeg. yow laa gëm de. Kim sëñ bi. ñëweel nii ma xool jàkkaarloog yow. maa ngi nii. ah ci loo ne sañ sa nga de merci borom fukki jikko yeeg ñaar gis nga ko de yaa baax gore tabe lewet mandu yiwén laa biir si soo iñaanoo soxoroo gosu bu dëgg la yaa baax yi waajur <laughs> sa déeg yaay ji laay métit lu ba tey jii dama ci amul pexe rek waaye kon ma sàkk ci pexe mhm. ah jeg sañ sa nga dëgg la sañ sa nga de nekk di la paracé te mol nga ku la wëkkit nga vitamine C nga jërëjëf waay tabaar fa kàll masha Allah ñaaw ah mhm. leen rek sa cadde gaaw a waaye nit ku baax nga waa xam nga suñu sama problème mm. ma am soxla xam nga kër ga dara doxu fa mm. du ndékki du añ te du reer démb ba tey xiif laa fanaanoo dir kay moo tax ma xëy rek ma ne rek yàlla dajale ma ak ma xam ne sama soxla faju na la a jàppale rek nga jàppale mag te dëgg la nag dëgg la li nga wax ni yëpp dëgg la mais xaaral yu sa taalibe bi bawal waaw xëy na bu si suba ba génn de daje moom sànq noonu waaw jox naa ko sama mille francs yi ma bawal nga ko jox. ñaar téeméer ma yoroon ba ma ko dajee moom wax ma sama soxlaam laa ko yëkkati jox ko ko. jërëjëf doom. dëggal la wet demal. jox naa ko de. jërëjëf ah, ba wala mën a duul xaw ma mooy duul xaw ma yaay duul waaye na ci am sama